alors Adji Mbergane man gis naa ne aussi euh, yàggul dara fan yi passé njiiti réew mi euh, dem na fee ci Diamniadio avant moo jël ay vacances am wax na sax dañuy réduire le train de vie de ba gis nga fan yi sax dagg na téléphone bi euh, maanaam ay mesures bëri mu ngi koy jël ba sax amala na fi sax benn séminaire gouvernemental yàggul dara ci fan yi ñu génn mais loolu yëpp quand même dafay firndeel effectivement que dëkk bi mu ngi am ay mu ngi ci ay jafe-jafe te mënatu leen wala waaw ma euh, Cheikh. man dama foogoon sax dama foogoon sax honorable présidente dama gis mu indi agenda indi ay kayit yu bëri damaa foogoon sax bilan Macky Sall la indaale. <laughs> ni ma gisee ak kayitam damaa tiit dama ne ko yéen yéen kayit yi ngeen yor. Eh, eh, pour lan la mais yàlla dimbal na ba may ñëw du ma indi dara. gis nga réunion ndax bilan bi dañ ko parkiriser. réunion laa xam nga looy dund. waaw hmm. soxlaw indi kayit man du ma bind bu may ñëw si plateau. bu la neexee teg ko fee parce que sox dama li président def dañ see mën a dut baaram xale bu ndaw sax boo dajee moom ci mbedd mën na la waxal li président def. rek loolu rek loolu dafa am solo. Hmm. maintenant am nga loo wax léegi muy euh, réduction train de vie de l'État. Euh, président bi mu jëlee nguur ki euh, bi mu nekkee ci bi ko Sénégalais yi fale la jël ay décision du tey ndax lii ngeen di junjun junjun ni mooy rationalisation des dépenses publiques mooy réduction train de vie de l'État lu yàgg la ndax bañ ko tabbee rek la wax ne gestion sobre et vertueuse mu jógee fa. Euh, njëkkoon na wàññi en 2014 lépp lu ñu téléphone yi xam nga kon du lu bees c'est que euh, dañ dañuy gën di améliorer di gën di avancer parce que c'est pas de mesures d'austérité d'austérité de dafay permettre loolu ñuy wàññi ci dépense publique di ko dugal ci yeneen secteurs yoo xam ne tey lu mel ni euh, secteur santé mu mel ni secteur formation professionnelle mu mel ni sécurité ak leneen ak leneen. mais lu jaaxal ñëpp aji moom moo di ne danaa la bàyyi nga yeggali mais lu jaaxal ñëpp dañ ne xam nga yaa ngi koy jun sànq ne nga gouvernance sobre et vertueuse waaye moom ci moom taxaw na mu ne entre 2012 ak 2017 wala 19 dépensé na quelque chose comme 307 milliards de francs CFA ci ay oto te gis nañ aussi ku bëgg marque Toyota la yéen député législature bi nekkoon fa avant yow ay ay ay ay Toyota leen joxoon léegi yéen ba ngeen leen jox leen aussi ay Prado te yooyu ce de luxe et waaw xam nga kooku dépense de prestige waaw loolu tamit dinaa ci ñëw. Ah. mais dama lay xamal ne rek na d'abord euh, réduction train de vie l'État boobu ñu wax léegi jundu léegi euh, def na ko ci wàllum charge locative tey boo seetloo jëm ñaajo bee tey économiser nañ fa plus milliards parce que charge locative ay huit milliards la woon. tey téléphone yi tey boo xoolee diggoon na 22 milliards ñëw 2015 ñu 14 milliards 2016 dem ba 12 milliards te ma ngay gën a wàññeeku loolu loolu ñu saluer mesure yoo xam ne la. dañ koy day wàññeeku dellu ci askan bi donc loolu la président def te du lu bees donc liñ koy agité fan yëpp naan euh, président mu ngi wàññi train de vie de l' état yàgg na ci du lu bees loo xam ne euh, tey la ko commencé donc loolu moo waral tey ji euh, tey loi de finance initiale bi mu ñëw assemblée nationale. Hmm. mais dafa nekkoon ci milliards. bi loi de finance rectificative ñëwee ñu nekk ci milliards loolu bees la de milliards. kon donc président foofu la ko askan wi di xaar ndax loolu muy muy wadd loolu di jógee ci ci li nga xam ne tey moom la ñuy euh, dindi ci dépense publique bi askan wi la koy delloo joxo ko moom yoxo ko moom joxo ko ñeneen mais ci askan wi lay dellu loolu moo waxal askan wi gis politique am mu doy leen mu doy mu doy askan wi ñu falaat ko c'est c'est tellement simple maintenant député yi damay wax ne député euh, nit la ñu investir ko ci ay liste askan fal ko kon donc kooku da ko waxee metre mettre dans des conditions bu mën a bañee di wax non euh, nit ki boo ko defee ci situation de vulnérabilité sonal nga ko te yaakaar naa ne salaire député yi euh, honorable xam na salaire yi moom sax bureau bi la bokkoon xam naa ne moo ñu ëppoon salaire <laughs> mais salaire yi ñu am ñun député simple yi boo seetloo xam nga ko xam nga ko xam na ko ñëpp xam nañ ko la presse chaque fois presse bind ko <laughs> donc euh, entreprise privée yi la fa nit ñi di am moo ëpp fuuf député yi ne moom la député yi di am

amul solo. mais leen jënd jënd yenn oto yu gën a rafet yu ndaw. parce que xoolal yu bees sax bul fàtte àll ba. parce que ña la fal du waa Dakar kese de waa monde rural ba dañ laa fal da nga fay wàcc di fa dem ñun exemple je donne un exemple ñun la 29 bii di ñëw dañuy def benn forum bu mag fi ñu koy defee Kaolack oto yi dugg ci tournée bi day dugg ci. àll Kaolack bi fii Kaolack moom péage bi damay expliquer rek non non damay expliquer rek ne. il faut mettre le député dans des conditions optimales gis nga sous région bi. Hmm. ñoo fa gën a néew ay salaire débat Sénégal moo gën a néew salaire si région bi débat Sénégal moo gën a néew condition yi yi mu am kon donc tey ñun li ñuy fay maa ngi ci benn plateau euh, yow bu ñu la fayee tey yow Cheikh Diaby 1 million yaa ko moom yaa sa sa njaboot bu ñu la fayee man 1 million kan laa ko bokkal. man sama njaboot ay militant ak ñi ma fal donc du coup yaa ma gën a nekk à l'aise kon donc nañu bàyyi vraiment di teg bët li nga xam ne mooy oto député yi et puis dañ koy fayee buñ paree 5 ans yi da ngay da ngay jënd oto bi oto bi kenn mayu ko député. ñu ngi leen di dagg. da non duñu la dagg mais boo jeexalee. Ah, da ngay fay oto bi. ah boo jeexalee nga mayuñ la ko man man nag treizième laa ñëw mais ma fekk fii lañ ma wax da ngay fay oto bi boo paree 5 ans yi kon donc loolu yaakaar naa ne. Euh, Euh, am na solo donc euh, muy député bi muy haut conseiller bi muy conseil économie social. muy beneen autorité boo xam ne fii nga nekk di politique war nañ laa mën a bàyyee ci li ngay wax parce que privé yi sax dangay ngay dugg ndox la oto voiture de fonction de service cinq ans ñu réformer ko jaay la ko. kon donc yaakaar naa ne askan wi moo ñu fal ñoom la ñuy mais Sénégal est-ce que bëriwul institution xam nga ñu ngi ak HCCT ñu ngi assemblée nationale c'est vrai que am na existe dans certains pays conseil économique social environnement il y beaucoup d'institutions sans compter agences aussi. est-ce que mënuñoo dem vraiment vers peut-être la suppression de plusieurs agences. ak conseil économique social ñu xool ban lañ ciy dindi. pour ko boole donc pour dire que ne euh, rationalisation bi du tey ndax yàgg na agence yu bëri supprimé na leen ñun fusionné leen te loolu yëpp pour askanu la jëm donc loolu moo waral askanu Sénégal may donc jox ko li nga xam ne mooy euh, waaw ma sœur waaw boo paree laa wax nga di ko bu may ba moo <laughs> sama sœur la mais xam nga tey dafa manqué argument hmm. xam nga le problème mooy opposition amatul benn argument <laughs> parce que lépp loo war a lu ñu waroon dem deman bu ñu waroon teg du baaraam président am na lu fa teg terre bi ngeen di wax DG de la Mountaga en train excellent travail gis nga nag mënuñ def des omelettes sans que c'est des œufs mënul nekk tey péage bi péage nii bi ñu koy Ablaye Wade di defar commencé mais mais dañoo sonnoon dafa métti woon a président Ndeye Guèye Cissé bu ko fàtte ba mu sol ay dalam péage bii bi ko Ablaye Wade di defar dañoo sonnoon bëgg a dee donc loolu donc loolu euh, il faut ñu jaar ci lu mel nii tagaa nag li mu wax dama ci ànd parce que c'est un technicien koo xam ne la li ñu ko jox da koo xam mais nag euh, la nature également a ses réalités. tey jii nee ngeen ne bu mën na ko tënk. vraiment bëgguma dagg xam nga nee ngeen ne mën na ko moom. mu yow laa jox kàddu nga nee ngeen ne mën na ko tënk moom. ci benn avant tawet nawet bi. Mm-hmm. mais xanaa boog yéen euh, yàlla amatut lom li ñu wax. Euh, l'homme propose de dispose donc nag yaakaar naan am na yoo xam ne vraiment bu siy débattre li ëpp solo mooy euh, jéego yi nga xam ne président Macky Sall mu koy def Sénégal teg seen bët hmm. soo civil bi da ko rafet lu ndax gis dégg naa sànq hmm. euh, muy amakodu muy muy jon kenn ku ci nekk tamit wax na lu am solo parce que nit tamit buy liggéey bu nangu ne da ngay nangu ne muy liggéey waaye bu këpp say bët rek na dara baaxut ndax ñoom kiñ ñu bëgg mu toog mënagu toog mu kan waaw day politique de bu dama koy tontu de dañuy wax dañuy wax économie boo duggee ci politique rek ma tontu la. lu muy ñëwee vraiment maa waxtaan bi. seen fal bi sax xam nga ni moom moom da ngeen ko lijjanti.